nuy naa leen si biir limametti point com comme ni ma koy defee suñu émission bi semaine bu nekk si biir limametti show nee naa leen semaine bu nekk dañuy def benn show ma seet kenn daal di fas yéene laaj ak tontu dox sama diggante ak moom tey moom du ma si <laughs> euh, itam tey moom lañ fas yéene ànd ak moom def suñu émission def suñu show boo xamante ne ni du yomb daal ndax maa ngi moom suñu jàkkaarloo du yomb ndax xame nañu maa ngi am mbégte lool bi nga ma accordé la ITV waa di am bu baax euh, yow moom <laughs> loo bëgg si man da nga koy am et puis euh, ça me toujours que ne yaa ma dàq ñu lay <laughs> daal moom nee na maa la dàqale mais. buñ toogee nii day war ne ne <laughs> yaa ma dàqale ñu lay ah. papa Cheikh moom ma dàqale waaw baax na kon nangu naa. ok Euh, kontaan kontaan ci li ngay def euh, et euh, voilà donc kontaan saa su ne di déggante yow di gisante ak yow di bokk ak yow liggéey voilà mbégte rek lay doon saa su ak Ndeye Pétaw. Papa Cheikh boo ñu doon wax un peu ci say jaar-jaar parce que ñi ñaa ngi la xamee woon Walfadjri après nga jógee Walf dem LCS jóge fa ñëw nekk tey Sen TV de médias boo ñu doon wax un peu ci sa jaar-jaar pour ñi ñu lay seetaan fàttaliku ko. waaw ah, résumé nga ko ah <laughs> sama jaar-jaar taxu après donc l'université euh, Walfadjri la euh, fa laa defee stage euh, fa laa tamit njëkkee amé contrat fa laa liggéeyee voilà def naa fa près de 5 ans donc après ci lañ am yeneen projet ci ci métier bi ci lañu amé le projet TSL bon après projet TSL euh, def ben recul euh, un peu près de deux ans de de recul euh, bo xamante ni maa ci yenen mbir yo xamante ci sorul communication quand même après ci ci ci la dem au groupe des médias mais Papa Cheikh ñu nga yow nga nekk journaliste boo xamante ne nii kenn dootu la présenté au niveau national même international temps ñu lay gis si benn émission bu am solo muy l'essentiel nga si bay sa waat yow itam mais bu ñu gisee réew mi jamono ji ni mu toll ak affaire parrainage préparation élection yeeg yooyu nan nga si mën a wax. parrainage euh, préparé élection yi euh, dafa mel ni comme ñun fi ñu toll ah léegi ñu ngi doon wax si di ne. <laughs> Euh, en termes dafa bari ne ni mu mhm. il est il est parti comme il l'a vécu. Beaucoup mhm. beaucoup apposé au Sénégal même chose là. Hein. Mhm. Euh, japonais préparer élection du am am Sénégal. waaw dafa faut suñu la ci euh, am président politique trop trop trop politique euh, buy xalaat euh, buy dox euh, lu muy def calcul politique la moom ci politique la lay dund léppam bu koy poser rek day xalaat élection bi ci topp ak moom la ciy gagné boo amee président bu mel noonu dafay déteindre ci tout le reste moo tax wóoluwante day jafe mm-hmm. moo tax tamit def pour l'avenir simplement pour consolider ay mbir pour le Sénégal de demain dafay jafe mm-hmm tout est calcul politique Les poules nous fi posé comme acte de 2019 ban profil lañ été quand kan gagné 2019 loolu mom mo xawa a touti eh, xel tamit mom mo xajamal touti mbirum parrainage bi dont ci principe bi lu bax la parce que ñu présidentiel pëccoxoo dugg ci candidat bu nekk ñëw jaar fii jaar fële. voilà bon euh, puissance euh, yi nga xamante ñu ngi ci biti tam jaaree fa mm-hmm. dugul seen i pion il faut protéger ça. c'est normal que ñu protéger ko. mais euh, li ëpp solo mooy nit yi nga xam ñoo koy animer. léegi mm-hmm. comme tout est politisé confiance bi day jafe ñu am ko ba pare tamit souvent xam nga le que nga ne da ngay def parrainage rek mm-hmm. ñu ne la. Euh, moins d'un pour cent lañ soxla ci parrainage bi motul soixante dix mille voix soixante cinq mille et quelques voix la yow nga ñëw nga taxaw nga ne am nga trois millions de parrains. xam nga loolu ça pose problème bu doon benn benn booy bu ndaw moo ko wax fële mais ay ministre ñoo koy wax ay ministre du de la république ñoo koy wax ay député ay ay ay ay ay chef wuy euh, de groupe parlementaire président groupe parlementaire. ñoom gagné nañu élection voilà ay président de la république si boppam chef de parti moo koy wax. xam nga loolu dafay euh, léegi parrainage day mujj doon fitna. ci ñëpp ñuy def politique. Mm-hmm. Euh, euh, dafa waroon doon ok lu ñuy seggee mbir mi mu sérieux mais warul doon épée boo xam ne da nga utiliser teg ko fitna ci ñi ngay jàkkaarloo ci langue politique loolu moo moo fausse jeu bi euh, et puis boo ci parrainage boo fa jógee lépp leneen noonu nga koy mën a jàngatee lépp lu ñuy jàngat rek dañ koy ci ok les titulaires du pouvoir tey dañ ko poser comme acte parce que ñoom ce sont des politiques d'abord avant et tout ce sont des léegi li muy jur mooy comme ay politique lañ defante lañ xam euh, pour nga gagné ci dara foog nga defante ak ñoom du ci ay santiment du ci ay principe loi bi lii la wax wala laa danga leen koy forcer loolu leen forcé wul foqorti ko si ñoom doo ko am bon loolu nag dootul nekk ci démocratie malheureusement foofu la Sénégal toll. kon démocratie bi yow sa njàng dafa dellu gannaaw Oui, dal na gannaaw ci yu bare parce que euh buñ dé wax rek euh, processus électoral système électoral Sénégal dépassé on fi fii ah, On euh, daño rëcc en 2012 ak Abdoulaye Wade euh, problème ticket yeeg yu mel non daño rëcc parce que ay nit dé nañ fi pour ñu def présidentiel bu ay nit dé dé pour ñu def élection lool mëno ko est démocratie je suis désolé On def ben pas bu ngand en 2000 commencé di bomber le torse ñun ñoo fi mën ñoo gën rafet nangam ak sangam. 2007 mhm. mu ñew lo ci mënti dégg def nañ élection euh, ñi nangu nangu na ñi nangul nak mais élection la mais 2012 dañu daanu légui 2012 bi ñu daanoo nag bokk na ci li tax ñu fal Macky Sall pour indi ay réformes changer suñu démocratie dëgër ba faw mais malheureusement il est venu mom tamit jaar fi ay prédécesseur prédécesseur jaar prédécesseurs yooyu fiñ jaar moom mooy def politique xool élection bi élection bi si topp nan laa koy euh, Abdou Diouf def na fi car mandat changé mandat bi durée bi changé changé waat changé waat il pouvait être élu à vie bi muy dem loolu constitution boobu la fi bàyyi woon ba ñu ko mu dem Abdoulaye Wade bi mu ñëwee gis nañ ne véritablement deux mandats mais troisième mandat bi gis nañ coow li Macky Sall ñëw na ok 2019 euh, la wax gis nañ ni mu ko waxee mais du éternel recommencement lay doon. mais foofu laa bëgg nga teg sa baaraam Pape parce que ak euh, fi ñu toll nii est-ce que président bu ñu ko faloon deuxième mandat bi bii. est-ce que du ne li daaloon Ablaye Wade ne bii mooy premier mandat cinq ans day laajaat beneen mandat mu nekk deuxième mandat xalaatoo loolu. waaw débat boobu jugoon na fi débat bu jafe entretenir la. mais dañ ko nëpp nëppal pour l'instant parce que fi ñu jëm la waaw mën nañ ko waxee noonu comme mën nañ ko waxee neneen mais comme génne na livre ba pare moom mu wax ne deux mandats lay def day jafe tamit nga anticiper wax ne du ci yam mais ce qui est sûr mooy dine c'est difficile également de dire que Macky Sall n'est pas un pouvoiriste c'est difficile de dire que ne tamit ñi ko wër nguur deewul seen xol. voilà maintenant am na benn constitutionnaliste bu yëkkati débat bi. ñu daal di koy na ci saa si. Euh, débat boo xamante ni loo ci mënti dégg ndey. loo ci mënti dégg. Mm-hmm. kenn vidéo ko. Mm-hmm. loo si njort ko. Uh-huh. loolu nag euh, mënuñu waane ba mën a wax ba mën a wax loo xamante ni ñëwagul mais li ñu mën a wax su suñu xel bu gàtt. Euh, ci li ñu gis mooy ne du loo xamante ni vidé nañ ko. Mm-hmm. donte ne nee nañ verrouillé nañ ko parce que buñ ko verrouillé dañ ne deux mandats de cinq ans. loolu lañu wax né moom lañu vérité vérifié te verrouillage boobu sax mën na ci ñëwaat bon euh Abdoulaye wad jurisprudence su Abdoulaye Wade moo fi téwaat verrouillé na 5 ans 5 ans la ñu ne ko kon 5 ans ngay def mu ne yeen xana da ngeen kata kay ni wala lan la ma dañ ma far pour 7 ans man suma ko bëggee sax aw droit wañi ko point wax ji jeex. ki nak problème am mo doon mom mo wax ne da kay wañi mais après ñëwaat na ci mu jéewul wañi 7 ans. est-ce que yenen 5 ans 5 ans bu ans comme y ko un mandat ci 5 ans c'est pas tranché bon véritablement ben débat la euh, te ñëpp xam nañ suñu euh, juriste lu ne mën nañ ko layal voilà daf may fatalé ben kilifa go dafa amone ne ben <laughs> way ba bëgguma wax mais en tout cas lu ñu koy tooj benn mais yow sa bu xëyoon ne nañu des mbaam moom loy wax mu ne dama naan pourtant mbaam ñeenti tànk la am de <laughs> foofu lay tàmbalee argument bon c'est pas vidé. Uh-huh. bon voilà mais yeggaguñ foofu uh-huh. li am solo moom mooy nañ jàll ci élection yu yoo xamante dina sargal Sénégal élection yoo xam dina tolloog démocratie Sénégal fi koy njort te loolu tamit mën nañ ci am tuuti sikki uh-huh. est-ce que xalaat nga ne Karim Wade ak Khalifa Sall lañ ci bokk. non duñ ci bokk. non duñ ci bokk. non Sall il paraît que moom war na mën a bokk ba léegi parce que euh, demaguñu fële nu mu tuddati cour lan la ñi ñi leen mujjee àtte. waaw demaguñ fa. xam nga mën xam nga yow boo demee dara la. commandé fa nag <laughs> ñu jël nag bi sonn si nga fay si quatre cent mille. ñu jël oto nga fay ko ñu indi ko ba gël tàppe. ñu am ba xam nag bi dina delluwaat ak du delluwaat xam nga loolu du laaj. Euh, du ñu def li ñu def yëpp. Euh, ci mbiru Karim ak ci mbiru Khalifa Sall di leen bàyyi ñuy présenté du logique. kon dañ ko def pour génne leen ci élection yi. pour génne leen ci élection yi. encore une fois c'est très difficile de dire mais loolu tamit euh, kenn mënul wax le contraire mais ce qui est sûr. Mhm. mooy di ne ñoom ci wàllu politique mhm. dañ nekk ci langue politique. Mhm am luñu def lo xamanteni ils ont prêté le flanc nguur gi utiliser ko contre ñom le bim ko utiliser contre ñom duñ yegg ba fi di len bàyyi ñuy présenter wu. lolu xel xalat xel mënu ko nangu dal? man sama xel mu gatt mënu ko nangu. Karim PDS nenañu nañu seen lañ ci tek sans Karim do am élection wa Khalifa Sy aussi la même chose lañu wax. wa ah, ils sont dans leur rôle lolu lañ mëna wax lolu lañ mëna wax mais sa laaj mooy ba xam Karim ak Khalifa dinañ bokk dinañ bokk ci élection non duñu bokk. mercato bi mu ubbee. ñu bëri dañu foogoon da ngay dem TFM mais finalement da nga mujj rester des médias. <laughs> man ay am na ay laajam yoo xamante ni. <laughs> non dégg naa yaa ngi doon wax ak waa TFM. wax bu demee nag. <laughs> foo déggee loolu. Ah, <laughs> non mais lan la man man man mënuma dem TFM naan leen débauché leen kooku xel xalaatu ko. dama déggoon ne bi mercato bi ubbee xam nga TFM seen éléments yi yëpp dañu dem nañu genn wàll gi dégg naa Pape Cheikh ah gars yi ñu ngi ko doon démarché da ngeen mujj d'accordul xaw ma genre yooyu. non non non euh, tollooguma niveau boobu xëy na aay aayaguma aay boo xamante ne ñoom soxla nañ ma surtout mais démarché wuñ ma de. <laughs> démarché wuñ ma non démarché wuñ ma sincèrement. sincèrement j'ai j'ai reçu aucune offre de de TFM aucune aucune.

Euh, yàlla may na ma wérgu yaram may na ma respect may na ma may na ma famille euh, su ma liggéeyee ba wàcce gis samay njaboot euh, kaf ak ñoom réew ak ñoom man ñàkkuma dara li ma bañ daal moom mooy loo xamante ni dafa may tere dafay cof ci sama liberté moi je quelqu'un de libre naturellement lépp luy cof sama liberté du ma ko nangu léegi loolu nag dafa ma dafay tax may sacrifier lu bari mënuma nek nit kuy talal loxo wala may dunguru wala may dem fenn fi lol daf may jaral sacrifice yu bari bon dinaa góorgóorlu à mon niveau li ma yàlla jox tamit vraiment maa ngi koy euh, di jema sante luma lu ndax mën euh, vraiment sante rek moma war euh sama parcours bam ko xolé fi ma jall ba fi et tout ça man dal sante yalla moma war te la gis gisuma lenen gem sa bop dégg Wakam ya ko yor. da politique. <laughs> bon Bougane eh, c'est un c'est un frère c'est un patron. Eh, man bokkoon naa ci ci ñu xeeboon trop eh, mouvement gam sa bopp ba démarrer. mais bokk naa tey ci ñi nga xamante ni na le respect. parce que il a fait du Bougane. Mm-hmm. maanaam dem na ci ba tay bu amee euh, huissier près de 800 000 parrains euh, ça veut dire que en 2012 moom moy deuxième bu mhm. donc chapeau à lui mhm. voilà mais euh, ci niveau wu xamné mhm. man journaliste la des point journaliste journaliste boko da affaire gëm sa bopp ak yu ni mel et tout ça xamuñu si dara. waaw ah, mais am na ay journalistes yoo xam dañuy far ba mu leen ñi dañuy far. yow faroo fenn. non nit ku mu neex nga far mais journaliste moi je suis man ci peuple bi laa sama patron mooy peuple bi moi mm. ba buggaan di togg gëm sa bopp fekkewu ma ko. Mm-hmm. fa mu jëm ak gëm sa bopp xawuma ko. bu ci amee ndam xaw ma fa mu jëm. xaw ma lu mu ciy lijjanti. xaw ma fu mu jëlee mbiram. kon mënu ma ko faral wala ma koy dund ma si loolu daal. c'est c'est c'est daa gëm sa bopp sa liggéey moo la boole. c'est clair c'est clair c'est clair euh, loolu du boo ko boo koy wax nii sax day day day xaw a alambiqué bon loolu bu nu nekk c'est pas c'est pas c'est pas des questions qu'on se pose bon malheureusement sénégalais yi raccourci yooyu la ñuy def. dañ la koy poser parce que ku nekk gëm sa bopp sa président nekk président di ut président dañ lay laaj ndax yaa ngi ko taxawal wakaamam déet fii li ma métti lépp la ñuy wax. <laughs> loolu mënul nekk. <laughs> kon jeex na <laughs> bon euh, kontaan ci euh, di la di tase yow saa su ne. Mm-hmm. bon c' est c' est bizarre yow rek yaa may interviewé yow rek laa koy <laughs> nangul c' est vrai que des fois y en a mais à part les plateaux pour nous, pour analyser Ben mbir wala yu mel mm-hmm. Euh, dama ko jëlee peut-être si sama benn nijaay bu nekk ci presse bi euh, Gaye bu euh, groupe communication Sud communication bon moom mosoo dégg ci ci médias yooyu parce que dafa gëm ne nous sommes trop nous absorbons assez la lumière kon war nañ mën a bàyyi ñeneen ñi ñu jël seen wàll moom noonu la ko gisee bon man budul dara bon je n'en donne pas l'air mais je suis pudique quelque part dama xaw a bari kersa moo tax. yooyu sawaruma si torop mm-hmm. mais bon ndey moom non et puis yow mënuma la wax déedéet ko yow la wax ma ñëw. ayca daan maa ko kon ñu moytu waa Maroc dégg nga ak waa Limametti yëpp di leen jaajëfal bu baax a baax amoon mbégte nag ànd ak moom parce que moom dafa nekk kenn koo xam ne dafa bokk ci man. ndax dafa nekkoon koo xam dafa ma teel gëm macha allah bu ma ñëwee dafay sawar si liggéey ak man depuis maa ngi moom LCS ñu mujj nekk LCS ba mu jàppee ba tey bàyyiwul franchement kon dama koy jaajëfal naa ne fu ma yëg mu ngi si kon dama koy béggee si loolu si wàllu presse bi nga xamante ne maa ngi si nekk si wàllu média bi nga laaj ak tontu doy dox ndax moom dafa loolu dama la koy ma toll dama wax tam sa gannaaw Lamine Samba mi nga tudd moom itam sama góor bopp la moom itam tabarkàlla macha allah des fois ma sister defal ni ak ni ak nii aw ma seen fay yàlla neen yàlla fay damay daay rek ak suñu borom di jaajëfal darman ko mi ma àndaloon ak xayitam bi nga xam ne mooy assistant bi tey <laughs> di jox dox daje semaine bii ñëw a ah. ayow be ay ca bég nañ ci yow yow itam di leen jox dox daje neen madame bég naa ci moom ndax ni muy toppatoo sama góor macha allah bég naa dox daje semaine bii ñëw ak kenn ku may àndal si biir Limametti Show jaa ngeen jëf